Uh-huh. kooku waa présenté wu. Souley Mbaye laa tudd. locataire laa si kër gi. yàgg uh-huh. naa fi lool man ak sama sama ak samay doom daal. Uh-huh. mais démb daal bi ma wàccee si boobu timis mooy heure bi taw bi commencé quoi parce que fii bi jullee timis la taw bi commencé kër gi xam nga dafa yàgg di temps bu ndox bu taw amee rek day fees dal quoi. léegi nag après kër gi fees dell sama jabar génn ak xale yu kër gi ku si nekk ñu yore siwo ñu yore paan di tànk pour bañ ndox yi dugg si biir néeg yi quoi ñi tànkee noonu di tànk nag ndox mi ñëw ak doole bi ñu bi ñu ma fekk biir man ak sama ñaari dom. boobu sama soxna moom mi ngi woon si biti bon yore siwo bi di tank pour évacuer moom pour moom deewoon na parce que xam nga bon je fais 1 mètre 85 ndox mi bu ba laal ma épaule donc cela veut dire que ne kon ndox mi jeex na bon si laa jëlee amoon naa ñaari doom kenn ki ñaar ñëpp ay jigéen lañ ma jël kenn ki si loxo ndeyjoor kenn ki ma jël ko si loxo càmmoñ ma leen nag su ma naree de man naa dee mais sama doom yi nañ sobe saa leen yëkkati ñu sut ma su ma bopp mais ndox mi mën ñëwoon nañu suma oto vraiment waaw. mais mur bi mu daanoo mbaa gaañu fi kenn. heureusement gaañu fi kenn parce que ay. blessure légère la daan ay fell fell daal ñaari jigéen ñoo si amoon demee dañ leen ko collé kenn ki sax mm-hmm. ñoom ñu ngi hôpital wala yi dellu si nañ non ñëw nañ ñëw nañ elle se porte bien léegi xalaat ne effondrement bi moo ko andi ndax tabax bi moo baaxul woon wala bon man nag <laughs> damay julli si yàlla ah, sant si yéen parce que lépp dama koy bàyyi si loxo yàlla bàyyi tout ça dama naan volonté divine la parce que logé nañ si kër gi bon mais man kër gi mosuma ko wóolu parce que man pour man parce que kër gi dafa xóot benn te xam nga fii Grand Médine bi c'est un quartier qui n'est pas encore métissé yaa bi bon donc crise bi xam nga mooy poussé nit ñi si yenn yi engouffrement yi ak yenn yi sax dëkk bi dafa donc mooy cherche ñu jéem a cherche mais vraiment yàgg naa di wut ñun mais fi mu nekk nii nu ngeen dund situation bi mur bi daanu na kër gi màbb na fan ngeen fanaan démb ak nan ngeen dundee situation bi. bon ñun démb si biti lañ fanaan ah dalal yàlla parce que fanaan. est-ce que ay autorités la ñëw nañ fi wala si bon j'ai commis une erreur parce que wax naa wàllu ne benn autorité mais d'après les rumeurs peut-être dañu ñëw suma ginnaaw mais dégg naa ñu ne préfet ñëw na fi sama ginnaaw. ak sa yi mais dañu ñëw parce que temps yooyu da doon taw mais temps yooyu man taluma samay doom laa taw bi ma ñëwee man depuis ce matin waa voie yi ñoo fi ñëw ne préfet dina fi ñëw après préfet daal bi ñu fi ñëw presque boobu ñu fusé ay midi yooyu ba léegi sax waxuñu ma ne parce que moom média yi laa jot a waxal mais ban appel ngeen di lancer autorité yi. bon autorité appel bi ñu leen di lancer comme appel bi ñuy lancer autorité rek ñu xam ne tey moom muy muy yàlla moom moo leen fi rek parce que groupe boo gis dafay am njiit yàlla teg fekkee teg nañ ko si yoon normalement ah moom xaaruma ndimbalal ko ndimbalal suñu borom lay xaar bu ko yàlla jaarale seen loxo nag ah yaakaar ko jot moom man. duma sollicité kenn duma yalwaan kenn duma dem si kenn parce que man yàlla laa yaakaar yàlla na fi sàkk moom fi wàcc moom fi moom ñoom nag la fi yàlla teg waaye ça ne pas dire ñoom ñoom moom réew mi moomuñ ko de réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ah dama bëgg ñu xam loolu réew mi ça nous appartient njiit groupe boo gis nag dana am njiit waaye nekk njiit war nga def sa bopp ne man nit ñi ñoo fi teg waaye bul yaakaar ne yow yaa fi teg sa bopp ça aussi war nañ ko xam ah d' accord